diggante Mimi Touré ak président Macky Sall day ku ci wax wax ci loo xam ndax daal ñi ngi gisee ginnaaw ay weer yu bëri yoo xamante ni seen diggante neexul Le Quotidien yéen kaay ne day loo ci mën dégg démb gise nañ ci mànkaanum njiitu réew mi ca Mermoz de lu toll ci diirub ñaari waxtu ñaar ñi lay séq nañ ko waxtaan wu yaatu te loolee lépp la ko waral mooy jongante local yi ak pexe yañ ca bëgg lal suuf su aane ñi lal pexe kay ci jongante local yooyu bokk moomel li du ñenn ñu dul ku jégi mise en place d'une grande coalition de l'opposition ak les bons rails tegu nañ ca raay ba de saxaar ya nag ak wagon ya la ñu a tànn ñan la bokk na ci nag liste unique boo xamante ni fépp ci biir réew mi PDS moom fi mu nekk nii ma nga ca bopp département bu Mbacké nooy na naat na neex na fukk ak ñaar ci ay parti kay def nañu wenu say limal parti démocratique sénégalais waaw ci la bokk bokk gis-gis waaw ak kan Pastef ak kan parti démocratique sénégalais ak kan gëm sa bopp waaw taxawu Sénégal bu fàtte grand parti ak yeneen ci kuréelu parti politique taxaw nañu def wenu say ngir jàkkaarloo ci jongante yi bokk moomel yi ci département bu Bakel moom commune bu Diawara daanaka mën nañu jàpp ne joxe nañ masalan ba loo ci mën dégg mooy membre ku jégirée fi nekk nii nangu nañ ñoom ñëpp tabb kenn def ko ca bopp ba mel ne kon ñoom ñëpp ànd nañ waaye ñi àndul kay kenn xamul fu ñu jëmee seen bopp mooy waa APR l'observateur xëy ci parti njiitu réew mi yëgle kaay ab groupe Futurs Médias bi ne loo ci mën dégg mooy équation dëgg la ngir doon wenn say kenn ku ci nekk nag assumer rek say déclaration te xam ne parti bi moom dana jël ay responsabilités yu mat sënkam bu waxtoo jotee rek dana xam nañ cee àddoo bu ñëwoon tey du xam nu muy àddoo di doomu maam ñi laan jeg joxe Léopold Sédar Senghor partem bi di parti socialiste bi daanaka faatu na la tribune yéeg lay kaay ni naka la président Macky Sall nag waajalee faatu parti socialiste leen ni dañoo ñàkk seen i vitesse ñu nekkoon ay ténor loo ci mën dégg mooy xoolal ma influence bi ñu amoon ci seen politique bi lépp a ñàkk Abdoulaye Wilane Serigne Mbaye Thiam Aminata Mbengue Ndiaye ak ñeneen ci kàngam yoo xamante ni amuñu benn taxawaay ci wàllum politique safuñu géej gi safuñu yàpp ñeex sax ndax jegewuñu ko ndax day jege wàllu kiite jóge fa wala day gën am ay taxawaay yu am solo élection locale yi 2022 daañu ci xam dara ak Amadou Ba moom mii nag loo ci mën dégg mooy su moytul nag la daloon Malick Gakou syndrome boobee bu ko moytu rek dana ko dal ndax il faut rek mu wane dëgg taxawaayam te loolee bokk na ci mu fas yéene wane taxawaayam dëgg ngir nag ci majorité bi wala bokk mu làngu sayam maanaam jël destin en mai docteur Moussa Diop ne xam na ne bu fekkee bëgg naa dëgg na ko fësal bañ ko nëbbutu te xam fermer ko leeg samay njaare déet mën naa bañ a yomb de ndax Moussa Sy mën na koo gàll góoseel galgal ko ca Parcelles Assainies dal ci Le Soleil yéene ñëw ci njiitu président Macky Sall ak na mu sopparñee bët gànnaar waaw mooy tournée économique bi nga xamante ni njiitu mi mi ngi koy def jamono yii loo ci mën dégg ci diiru fukki at daal ay investissement yu am solo Soleil yéene kaay fësal na ko ñeent téeméeri junni milliards yu fel as lëf dugal nañ ko ci fanweer ak ñeent ay projets yoo xamante ni àgg nañ ci région bu Saint-Louis Matam lépp lu jëm ci jumtuwaay dem tali moo xam pong ak ay xàll ak lépp lu jëm ci bërëbu jàngukaay bërëbu fajukaay jëm ci wàllu ndox ma tamit lépp ay yemb lu toll ci ñetti téeméer ak fan la juróom yu fell aslëf ci milliards ñu waajal ko ngir atum 2021 2024 loolee nag ngir gën a yeesal Fuuta ak wàlloo ma dal ci yëglekaay yi tàggat yaram maa ngi ci stade loo ci mën dëgg jàppaleen ni amical Sénégal Cap Verde 19 heures lay doon la ñu xam ne mooy ngir yàlla bëggal leen ñu rek ni ngeen ñu defoon bi wees Kalidou Koulibaly di capitaine des Lions waaw na seen xel dal daañu def suñ kéemtulaay kàttan ngir bëggal leen ba ñu rek indil leen ndam li indi leen ma suñu làmb ma dugg ca làmb ja maa nga ca géew ba jóge ca bal ba Balla Gaye de Bombardier 31 juillet fanweeri fan ak benn ci yor sulet mu nekk nag règlement de compte dëgg lañ fa nemee ko Balla Gaye de ne wax kaddu yi bu dee da ngaa ñëw pour xeex danaa la joyanti jubbanti la Bombardier tontu ko ndax tontu du forax na ko de da juum boo demee bay àdduna damay rek sukkandiku ci wàllum xar lu ci mën di am